kon nag loolu ñu ngi ñaan yàlla mu tàmbali ci bisimilahi rahmaani rahim egg ci alhamdulilahi rabil alamin te it euh, ñu gën a amaat yaakaar bu baax a baax euh, ca xam ne it euh, jàpp na ne li liggéey ak li président Macky Sall liggéey ah ci dëgg-dëgg rafet nañ jort bi yoon kon nag liñ mën a def rek nan ko def ci bisimilahi rahmaani rahim eggali ko ci alhamdulilahi rabi lépp nekk ci jàmm bu demee ba booru 18 heures ñëpp gis ne mm, def nañ ko ci jàmm ci yàlla jox ndam mu am ndam kon ñu ngi sàkku ndam loolu yàlla jox ñu ko loolu daal moo doon tànk yi moo doon jéegi ñu gisee mbir mi daal euh, ministre de l'intérieur ñu ngi ko ci sant parce que ni ñu ko organisé bi yoon ak ni ñu ko taxawoo jàpp nañ ne euh, lépp rafet na lépp jaar na ci yoon te ni ñu ko organisé jàpp naa ne euh, ca dëgg-dëgg organisation bi rafet na kon nag loolu yi rafet na njort it ne mbir yi lu ci bari changé na kon changement boobu mu am ci boppam ñu ngi am rafet njortu ko ne lépp noonu lay continue euh, organisation bi baax na nit ñi ñu ngi génn di wate sant nañ bu baax a baax yàlla nañ ko def ci bismillah rahmaan eggal ko ci alhamdulilah rabbil alamin jërëjëf